aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbooloo mi teew ci jataay bi ñépp moo xam ñi nga xam ne bàyyikooguñu ci barab bi wala ñi nga xam ne ay ite dab na leen ba ñu ci barab bi nit yooyu topp leen mu di nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyikoo ci sëriñ Cheikh Khady bi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi bàyyikoo léegi jiital leen ci muy di sëriñ Xabaat ak sëriñ Bachir ak sëriñ Xaalid ak bokk yi nga xam ne ñoo fi teewoon li ma waxoon di sant ñëpp di leen gërëm ci tuuru sëriñ bi ngir li nga xam ne moo fi dajale du lu tuuti lu am solo la lu rëy la itam sant ñi nga xam ne jël nañu fi kàddu yépp ba ci sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moo toog léegi lépp di wone liggéeyu sëriñ tuuba waaye cër bi nga xam ne moom la borom daaru moo ti am ci Serigne Touba su fekkoon ne ñi nga xam ne àdduna rek lañuy jàng moom lañuy ñuy wone ña cay jëfandikoo wàll tourisme dafa mel ne kon dañuy wone di jaay daarul mooti muy dëkk boo xam ne mi ngi judd ci ndigal di wéy ci ndigal ba am téeméeri at juddu ci ndigalul sëriñ Touba mu jox ko rakkam ji nga xam ne mbooleem ko mu bokkal Mamour Anta jox ko ko cër bi nga xam ne moom la am ci sëriñ Touba lépp dellu ci wane matuk Serigne Touba mu rafet lool bi nga xamee ne njabootuk Serigne Amsatou Diakhaté teew nañ ci jataay bi serigne abdul ahad jahate yëkkati kaddu ci seen tour mu melne ne bi nga xamé ne sunu mam serigne am satu jahate indil na lettre bobu borom dar moti mu melne ne la mu melne ne la ngir lettre bi nga xamné mom serigne bi bind ci loxol bopam amna ci bokk yi ñoo xam ko yor nako boko boo gisee day mel tay la kon buñu ñu ñoo rax ci doli serigne am sëtu jaxati mo ndaw mi warona def benen conférence momit muy indi ak rafet ci ne ak laabiir ak woyofal ci jataayu jenn ñi ne itam man lu tuti dalay jangal lu rere. ndax serigne am ken natteb lu wul ne ci li ñu jele ci serigne abdul khodous te du lambatu mu ne abdul ahad dëkk bo xamne sa wayjur moo joxe ndigalul sanc ga sos ga jox ko sa nijaay lenqey mu yot ko ndigal li borom daaru mooti doo fab jàmbur dama bëgg nga jàppee daarul mooti ne daarul minan ca Touba wala daarul xudus wala guy mbind sëriñ Abdul Ahad nangul ko kon doonee mbooleem ko fi toogit nangul leen ko noonee ba sëriñ saalix bi nga xam ne radiallahu taala anhu daf daan faral di wax ne kaddu ya sëriñ abdul xuddos waxoon sama kilifa ga sëriñ abdul ahad duma ko fàtte mukk noonu laa koy jàppe kon mbir mi mbirum sëriñ tuubaa la lépp sëriñ tuubaa la téeméeri at yoo xam ne ci pas-pas ak ngëm la tegu téeméeri at yoo xam ne ragal yàlla moo ko lal téeméeri at yoo xam ne ña ko fekke woon bañ koy sos duñu woon nattable mukk ne dina mujj mel nii te dina ko raw yi ndax pas-pas ba nga xam ne moo leen fi indi bi ñuy bàyyi ko Mbàkke Kajoor jàpp ñu woon ne dinañ mën a dund ci barab bi dund gi ñu fi dund ndax xéewal ya nga xam ne moom lañ doon dund ci Mbàkke Kajoor waaye Sëriñ Tuuba bi nga xamee ne mi ngi jóge Ceyeen war a des njaareem diirub li nga xam ne soob na ko mu war koo des ci kaw suuf dafay mel ne dafa sàkk woon borom daarul mooti li ko dese moom it mu toogee ko fii ci daarul mooti muy beneen secret bu nekk seen diggante ba tey si tey boo xoolee daarul mooti nga mën a joxoñ tuubaa ci wet gi joxoñ njaareem ci wet gi su fekkoon ay wasi cin la togg ko ci togg rek dana baax noonu la ko bindee noonu la taxawee loolu li muy tekki moo di fépp fi sëriñ tubaa joxoñ ak lépp lu mu wone waxtu wu nekk dafay màgg jëm kanam te day gën a wone sëriñ tuubaa moo tax bi nga xamee ne lenn ci bokk yi am nañu xalaati yëkkati lii nga xam ne moom nu fi dajale tey moo di fàttaliku ak xool téeméeraat yi nga xam ne barab bi am na ko waxtaan ci ak sëriñ bi sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne moo jiite njabootu borom Darou Mouhty gépp te ñu nangul ko ko mu nangul leen ko lu ci am solo la mu yàggoon lu ñu dem ci sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar bi nga xam ne moo di xalifatu Cheikhul Khadim mu rafetlu ko lool joxe ci kàddoom soññee ci itam ñu am sañ-sañu sóobu ci nag def ko teg ko ci ay loxo yoo xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sawar na ci amal gi loolu bi mu joxee déggal li soññee ci moom sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar sëriñ Cheikh Addi yëgal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom Daaru Muxti yëgal leen yëgalu boppam boo xam ne ñu ci bari daf leen ko jokkoo ak ñoom ci téléphone door yónnee ay ndaw yoo xam ne dañoo dem àggaat ci ñoom lépp ngir gën koo dëgëral muy dox di dox ba agsi nag ci war gee taxawal loolu ñu delloo ko ci mbooloo mi nga xam ne naka jekk ñoo fi nekk di liggéeyal boroom Daaru Muxti wala ñuy liggéey ci borom Daaru Muxti waaye di liggéey ngir seen bopp di liggéey ngir sunu bopp ñu di ko taxawal ba jàpp ne tey jii mooy bis bi nga xam ne ci la ñu war a def li nga xam ne mooy wane ne tàmbali nañu yëngutu yiñ ci war a def diirub li des ci at mi fii ba 31 décembre 2012 loolu bi ñu ko defee ñu yëkkatikuwaat dem ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo di ñoonu gën a jege Serigne Touba kenn ku ci nekk délégation boobu ñëw ci yow. ñu rafet la ko lool boole ci wax yu rafet lool yu dëggu ndax mat wax mën naa rafet te dëggu nga manqué tuuti waaye wax yu rafet yu dëggu ànd ceeg seeni alal ànd ceeg seeni xalaat wane ci ay seede yoo xam ne yi am na ci yoo xam ne foofa rekk la gën a mën a jóge ndax fa la gën a yelle wax yoo xam ne mën naa fàttali képp koo xam ne ci liggéeyu sëriñ Touba ñor na la ñuy sant bu baax njabootu sëriñ Touba gépp képp ku nu gën a jege sëriñ Touba rek ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu sëriñ Cheikh di nuyu boole bokk yépp te duñu fàtte mukk suñu bokk yi nga xam ne ñoo nekk fas Touré te ñu teew nii ci ndigalu sëriñ Abdoul Aziz Touré muy mbokk moo xam ne lépp lu fi yënguti ci barab bi te xam ne diine rek moo ko ñor toppatoo ak bokk moo ko ñor faw nii la ñuy def da leen di yabal ñu teew keroog bi ñu gisee sëriñ Maodo Touré dafa wax ne waruñoo yem rek ci conférence yi ak jataay yi noonu waaye lu fa jógee sax lu ne dañ ko war a tënk jéem a seet ba xam naka lañ koy mën a jàngalewaat gone yi ëllëg loolu ak ittewoo moo ko waral kon ñu gis ne boroom daaru mooti bi ko sëriñ Touba joxe ndigalul sañ ci barab bi mu nekk loo xam ne dafa nur woon lu jafe lool nur woon lu metti lool ci képp koo xam ne zahir rek ngay dund moom nga xam waaye fekk ne booba xam na li ko fi sëriñ Touba di faggul xam ne li nga xam ne moo jiitu itam te loola rek la fay gis mu daal koy nangu nekk fa ba yi fi nett li yépp fekk ko fi ba bisub tey jile kon pas-pas ba nga xam ne moom la amoon ak ragal yàlla ga nga xam ne moom la amoon te yooyu yaar mooy li nga xam ne moo mën a tax nit ki dund dund googu nga xam ne moom la doon dund ci barab bu mel nii ci jamono yooyu le pas-pas boobu nag ak ragal yàlla googu mooy li nga xam ne mooy ndono loo xam ne buñ ci saxee insha allah ñi nga xam ne moom la sëriñ Abdou Samad tudd léegi ndax nag ndegam doomu aadama sunu borom wax na ko ci alquran moo di ne lu ñu baax baax faw danañ mas a sangoo suuf bi nga xamee ne bàyyi ko na fi ñi mu fi bàyyi liggéey nañ ci liggéey bu wóor a wóor ba moo tax mu mel nii tey loolo itam moo war a nekk ndono li nga xam ne ci loolo la war a xool moom lañu war a jàpp bu baax a baax ndax it nag mujje mu réer dara jaru ko moo xam ñi nekk xalifa lañu ci kër borom Daaru Moti muy sëriñ Mouhamadou Awa Balla sëriñ Abdul Xuduus sëriñ Cheikh Addi mi ñu ñaan yàlla mu yàgg ci loxoom ak ñi nga xam ne du ñu ay xalifa ci kër borom Daaru Moti waaye njabootu borom Daaru Moti kenn ku nekk ci ñoom wane nga wet ga nga féete ak la nga mane xam ne nii nga war a mel nii nga war a jubbante nit ñi ndax yaay bu ñu ko doon mën a wax ci lu ñu mën a dégg ci lu yomb yaay ambassadeur borom daaru mooti ñoom njabootu borom daaru mooti ñi nga xam ne dañoo sosu ci moom kenn ku ci nekk jëfe nga ci noo xam ne doonte doo xalifa Cheikh Ibrahim wane nga ci aw jàng ak ay doxalin yoo xam ne ba ci suñu kilifa yi fi bàyyi ko léegi loolu mooy li nga xam ne mooy royukaay bu baax roy nag ndega mënul ñàkk li gën mooy roy loo xam ne lu am njariñ la lu la jariñ tey di la jariñ ëllëg njabootam gi nga xam ne ñooy tàmbale ci sëriñ Mamadou Awa Balla léeg-léeg daana bëjjlu daan daana sembulu ay sàq sàq yi te fees ndax réyaay bi li ñu amoon lépp ñu def ko mu ne demal jëli jaagub diw demal jëli jaagub diw demal jëli jaagub diw ci doomam yi ñu def ko ci ba sàq yi fees xam nga loolu xam ki ngay teg ne loo ko teg mu nangu ko te koo ko itam mu xam ne lii njariñam la loolu moo tax ndax kon jaaduwul ci noonu ñu xool ñi ñi jiite ñi nekk ci suñu kanam lu ñu nu woon loolu mooy suñu njariñ noonu daana ko dafa def ak ñoom ba ci sàq yi fi mujj bi mu fi bàyyi ko lu mat fukk mi ngi cunkóoli lu mat fukk mi ngi daaru salaam lu mat fukk mi ngi daaru koso lu mu néew néew mille deux cent tonnes nekk na ci booba ci dugub ba ba ba sëriñ Mouhamadul Moustapha ñëw mu xamal ko ne lii biñ ko fiy denc sëriñ Touba moo taxoon te yaay sëriñ Touba. seetal noo ko doxale rek baax na sëriñ Mouhamadul Moustapha ca xel ma ak jàppaleeg sëriñ Touba ga nga xam ne moom la làmboo mbooleem ñi nga xam ne ñooy kilifay yoon wi te booba ñu ko soxla bari na kenn ku nekk daf laa wax. nga ñëw yaag sa mbooloo di bojj ba am li nga bëgg lépp nga sëf dem ba ñëpp daj liggéey boobu mu doon def nag jëli ko ci ndigalul Serigne Touba nga xam ne daf ko waxoon ne da ko waxoon ne ko Ibrahim maa ngi lay dénk nga taxoo mbay ndax mbay mooy li nga xam ne as ci la mën a dund ku dul as ci la mën a dund mbay mooy li nga xam ne soo faggoo leneen lu dul mbay danga jël la nga doon faggu jënde ko lu ñu bay te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne loo jëmbat walla nga bay ko loo jëmbat wala nga ji ko bu ca lekk wala doomu aadama ju ca lekk wala njanaaw lu ca lekk am nga yoonub sarax kon sëriñ Touba lu mu wax rek noona la li ñu war a jël nag kon moo di ndono loolu nga xam ne moo di gëm gu dëggu gi ak ragal yàlla gi ak topp gi ndigal mu yéemal ko misaale ci yii jàll leen te bu ñu defut loolu lépp lu cay lor nun rekk lay wàññi nun ñi way topp yi waaye ñoom noppi nañu te ku jaar ca seen tànk ya muy ndigali sëriñ Touba ak lam joxoñ borom daaru mooti jarju rek nga ci mën a def ndax lii sëriñ Abdou Samad wax léegi dëkk bi bu ko borom daaru mooti sosee bàyyi ko ci loxo sëriñ Mamadou Awa Balla mu jaar ci sëriñ Abdul Xudus nekk ci loxo sëriñ seexat Khady li ci yokk ak ni muy mel lépp baatinu sëriñ Touba daf cee feeñ ndax fii nu taxaw ni ñetti forage yi nekk ci dëkk bi 450 mètres cube yi nga xam ne moom lañ mën a am fi ñu daje ñoom ñett mi ngi nii sunu kanam ñoom ñett yépp foofu lañu ñu daje bi koy ñeenteel fii nu toog file centrale bi daal fekk si leen ñoom ñett yooyu te boobu nañu ko déggee suñu melee mooy ëpp doole ñett yi mu fi fekkoon ci koo xam ne keroog bi mu fi wàccee matt rek a fi am waaye dara ci ndox amu fi mu ne dana ñu dem ba matt gën fee jafe ndox loolu defe naa ne suñu bokki jigéen ñi dem ci marché bi di saytu li ci biir kër yi xam nañu ne ndox a gën a yomb am matt fii mu nekk li loolu nag borom daaru moxti junj yooyu yëpp bu ko dee def gis nga fii nu jàkkaar lool bant yële ngay séen fa la daan nekk julli fa tisbaar julli fa takkusaan wax yu jëriñ nit ñi rek lay wax su takkusaan si xawee jóg tuuti mu ñëw fii ngeen di seen ci wetu gi julli fi timis julli gee door a dugg ci biir te lépp nag wax luy jëriñ nit ñi rek la leen la daan def waxam yooyu bokk na ci daf daan wax ne su ngeen ma defut ni nga xam ne kuy jëfandikoo ngànnaayam noonu lay def ba ca noppee sànni ko bala ngeen a xam li ma leen di jariñ ma won leen ginnaaw ni fett di amale njariñ boroom bu ko wane ginnaaw bu ko sànnee mu dem noonu lay demee kon waxtu woo xamee ne li war suma digganteeg yéen ngi koy def sama digganteeg yéen yéen ngi koy def bu ma leen wanee ginnaaw ngeen di door a xam li ma sëriñ Tuubaa defal fan laa leen mën a féete loolu xam nañu ko tey ndax dëkk bi fi fii nu toll nii am na rayon yaatuwaayu juróomi kilomètre ci wet yépp nag loo xam ne def nañ ko état des lieux waaye lotissement yi matagul ñeenti téeméer yi parcelles yoo xam ne ñeenti junni parcelles yoo xam ne lotissé nañ ko gouvernement waroon koo fay ñi ko doon lotissé ba fi mu ne fayaguñ ko mi ngi fi yoo xam ne dëkkee nañ ko li ci ëpp kon li ñu dëkkee li ñu dëkkewul neexul a xayma waxoon naa fii ci bëccëg ne li Serigne Cheikh Gaynde Fatma waxoon ne diggante Touba ak Darou Moukhty ab gott amu fi loolu mën nañ cee teg tey ji te gën di leer mel na mbokk moom doon may ab parcelle mu dikk di ko jaxase ak Thierno Dieng mi ko doon jox mu ne ko demal jël ko ndax feeg Darou Moukhty ab gott amu fi loolu mooy liy wane ne liggéey bi bi ko sëriñ Touba di jox borom Darou Moukhty la mu ca jubli digganteem ak boroomam ak turu dëkk bi lim ko wax ne ko dëkk bi dañ ko tudde daarul mooti fortuwuma ko loolu dafa bokk ci ay liggéeyam digganteem ak boroomam moo tax sunu yëngutu ak sunu dal yépp li nu war ci barab bi ci kaw suuf si tedd si moo di jëm a dundal njàngaleem Serigne Touba ak ndono yi nga xam ne moom la nu Cheikh Ibrahim bàyyee ndax nag képp koo xam ne jëfandikoo woo loolu it bisa nga ci kanam boo xam ne faw danañ takk loxo yi ak tànk yi nga woon ginnaaw nit ñi la doon neex nag su boobaa mooy la nga waroon a def nga def ko la nga waroon a nekk nga nekk ca te it nag lay mën a dimbali nit ki ci loolu mooy mu bañ a ndax kee ngay def wala kee defut ndax rek boo xoolee ne kee ngi def ak kee defut rek boo mooy wul doo def ndax bari na loo xam ne dañ koo war a ci de li wolof yi di wax na sëb bi li ko bënn mi ngi ci biir bu fekkee ne ki la gën a jege sëriñ bi melul ni sëriñ bi bëgg sëriñ bi yaakaar naa ne loolu du neex a layal ki la gën a jege sëriñ bi daf laa war a gën a mën a jafe ndigali sëriñ bi daf laa war a gën a mën a dundal ndonal ak Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti ki la gën a jege sëriñ bi daf laa war a gën a mën a sax ci njàngale sëriñ Tuubaa ndax it nag boroom daa moo moxti daf daan wax ci lim daan wax ci jataay bii nu jàkkaarlool bokk na ci doomi soxna làmb ju mu bëree bu ca daanee it te du xam-xam du diine du bër bër mooy champion bëre mooy li ñuy def mbër mooy ki koy def bër mooy ki nga xam ne ndam li nga am ci kaw moo tax mu ne boo bëree ci jenn làmb judul xam-xam ak diine te ñu la tudde doomi soxna soo fa amee boo fa dee champion yi doo champion yooyu nga xam ne nag mooy jikko yu rafet yooyu nga xam ne jëlee na ko ci Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa wax ne musta taqalikoog man ci mag ba ci ndaw musta juyeeg man ci dara kon lu ci nekk Serigne Touba moo ko ci def mu jële ko ci serigne Touba dundu ko ak mom bolé ko ak nak lam ko xamal ci diiné ak la nga xamné luñ xam la ak luñ munta xam bis musna ñew ñi ñu lu jëm ci wér wéru koor mune gis nañu wér te nekkunu fa serigne ba gis nañu wér te nekkunu fa serigne ba nan def li nga xamne mom la nu yoon sant te bobu am na ñeneen ñu doon doxé neneen di waxé neneen ba mbir ba jàllee serigne touba da ko ne bu ñepp defoon ne yow duma sonn bo ëllëgee motax nak ndegam serigne touba daf no war lool te def nako talif ay téré yo xam ci lañu xamé suñu diiné man ci defaru tay ak ëlëk la baax modi nga jëm ci yow ci sa bopp waaye itam nga jéem cee saxal sa njaboot ndax mbir bi foofu la nekk su fekkee ne li nga xam ne moo di xam-xamu diine neenal nañu ko ñi nga xam ne ñooy nooni diine danañu xam fu ñu jaaroon baax te ñooñu nag ñu bari lañu lool yu pexe yu baree bari lañu amit nag li nga xam ne moom la ñu bare bari ci doomu aadama yi gën a jox bopp jox ko dënn muy alal yi àdduna ñooñee nga xam ne ñooy xeex diine bari la nañ ko lool te bañu ñu ca dara it nag waaye xam nga su fekkee ne danga tànn ginnaaw bi la yàlla tànnalee ba noppi nga tànn la baax nag mooy nga tànn tànnin woo xam ne dana la jariñ tey di la jariñ ëllëg ndax yàlla moom moo la tànnal fi nga bokk fi nga juddoo ak yeneen yenn mel waaye nag yaay tànnal sa bopp ci leneen li nga xam ne ndax sunu boroom dangay am yéene bëgg mu jàppale la ci dangay am yéene sell mu jàppale la nga sel nga am yéene maandu mu jàppale la nga maandu ak yeneen yenn mel yeneen yenn mel ci luy tax luy defar doomu aadama yooyu yépp nag borom Daaru Muxti amee woon na ko ci Sëriñ Tuuba déggoo ci ak moom ànd moom ci bi mu demagul ci géej gi bi mu demee ci géej gi salaat yi nga xam ne moom la daan def ngir bëgg di ñaan yàlla sunu borom sëriñ bi del seek jàmm ba léegi ñu ngi koy def fii ci jumaa ji muy wëlëre wu mu jàppante woon ak moom ngir ab jaam bu jaaxalee sañ naa ñaan boroomam te booba demul sëriñ bi sëriñ Tuubaa rek la jaaxalutoon waaye jaaxal na keneen ku dul moom loole nag moo war a nekk sunu royukaay moo war a nekk sunu lu ñuy xëyee di ci gont suñ ko defee rek danañu jariñu tey danañu jariñu ëllëg te dëkk bu mel nii sosu ci ndigalul sëriñ Touba ki mu ko jox mu wóolu ko wóolu kóolu téef goo xam ne ñépp gëm nañu ko kenn du ko weddi ku yàlla baaxee nga nekk ci war nga xam yan melo nga ci wara nekké ndax mo gën nga mel ne da nga fekk nit ku defar aw ñamam ba mu sell ngay tibb suuf wala leneen lo xam buñ ko ci défé nit du ko mëna a jëfandikoo loolu moo fekk liggéey yu mel nii nga di ca dugal leneen lu la fa baaxoo nekk te loolu ku def ku nekk bis dana ñëw nga dajeeg sa borom wóor la ne kii nga xam jàpp naa ko jàppale ko jox ko lii nga bëgg koo tiilimal tey maag ñoo ci des yàlla nu ci yàlla musal kon liggéey ngi ni boo xam ne balaa at mee jeex lépp lu ci war a génn rek incha allah boroom xam-xam yi danañu ko génnee danañu ko wane ngir ñu xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa yi bis bu nekk dalay fàtteloo démb te loolu itam mën nañ ko gëmee ci lu baree bari ba tax na li nga xam ne moom la sëriñ Abdou Samad doon wax léegi ci wàllu ndox ak yeneen yi ni mel yépp ñi fi dëkk ñi fiy dund ñoo war a njëkk a gëmal seen bopp ne nangam ji moo mën a am lii munta am ndax sëriñ bi sëriñ Abdul Xuddus daf daan wax naan ñépp dañoo bàyyi seen dëkki cosaan bàyyi seen tooli cosaan dikk fekk ci sëriñ bi da ca daan teg nag ne te mu jar ko lool te mu jar ko lool jooju nag sëriñ bi moom ma nga ca ca nam ca war a nekk waye nak yow mi nga xamne da nga bayyi sa tool ci sax wala sa baye wala sa mam bayyi won ko nga yor sen nono te jappale wo serigne bi te mu jar ko lol joju fofu sik day feñ kon nañu xamne waxtu wu ñu gënee fonk liggéeyu Touba bi waxtu wu ñu gënee fonk lii nga xamne mom la borom Daaru Muxti tibbe ci serigne Touba xewali aduna ak alakhirah rek lañuy am te doom adama dafa bindoon noo xam ne waxtu woo xamee ne mi ngi dund ci xéewal li fekk ñàkkul xéewal ga rek du xam ne amoon na ko bu ko ñàkkee lay door a xam ne amoon na ko mu ngi mel ne li ñuy léeb di wax ne waxtu woo seetee nit ku wopp ci hôpital bi soo ko wonee ginnaaw di dem dafa mel ne dalay xool bët boo xam ne ñee la ñee goo xam ne ci xolam mooy dafa mel ne danga sol mbaxanam wurus noonu la bët yooyu la lay xool loolu moy xewal so ci dundu bu la yalla dimbali wul lool doo ko xam ya ngi koy xam rek keroog bang ko ñaké kon bu mënu ñak xewal serigne touba yi mu jox borom Daaru di leen fedd li serigne bi tàmbule ko ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi ci li ñu defagun ba bañ yagal ci jiitul Mamadou Cissé ak serigne Ousmane ak mboolem commission yi nga xam ba taxawal jotaay bi tey di fedd sunu cant ak sunu gërëm ci njabootu serigne Touba ndax xam nañu ne mbir mi ñoom seen mbir la ñoko ko moom te wane nañ ko ci anam gu ne nag mboolem këri serigne Touba yi rek def nañ ci seen xalaat def ci seen alal jàppale leen ci ba tax ñu gën a ñeme am na kenn ci ñu bokkoon ci ñi doon dem ci kilifa yooyu dafa ma wax ne ma boo fa jógee dangay gën a am dangay ngay am kersa ngir dafa mel ne yow jàppagoo woon ci dara sax ne ko mbirum sëñ Tuubaa moo mel noonu kon nañu jàpp bu baax te lii nekk ab tàmbali te bis bu àggee rek ñu xam ne liggéeyu sëriñ tubaab bi nii rek la mën a mel déggu ndigal ak topp ndigal bi nga xam ne moom la borom Daaru Muxti defoon ci sëriñ Tuubaa lii rek la mën a jur mënut a jur leneen lii rek la mën a jur yal na nu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy gëm te ànd ci ca nekk ci te bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañ cay raaxaloo te bokkuñu ci yàlla nu ci yàlla boole boole ga nag mooy nu ànd ak ñoom ca na xam ne na lañ ko bëggee yàlla buñ bokk ci ñi ciy raaxaloo foo dem nag raaxaloo am na fa waaye yàlla buñ bokk ci ñi ciy raaxaloo di nuyu ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñëw fi teew ñekk ibrahim Sall mi fi taxawoon léegi di wax ak Modou Diagne Fada tudd na ko tudd na sëriñ Modou Mbacke mu sëriñ Siid ak mboolem ñu ànd loolu li mu ciy jublu moo di ñi nga xam ne ñoo yor diine ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu àdduna waxtu wu ñu rafetalante rek loola nekk njariñul njaboot gi nekk njariñul mbooloo mi rawatina ba nga xam ne ñëpp nag ci biir njaboot gi lañu la ñu bokk ndax kenn ku ci nekk la ngay am soo ko la ngay wut soo ko amee da ci delloo ci sëriñ bi loo xam ne dana danga ci feeñal liggéeyu sëriñ bi da ci feeñal li nga xam ne moom na ab taalibe bi war a mel ci seen diggante ak sëriñ bi door a jëfandikoo li nga xam ne doomi réew loolu la war a def kon nag nañu xam ne fu waay nekk te xam ne sëriñ Tuubaa de nga yaakaar ak loo xam ne yaa xam politicien bi la yaa xam baykat bi la yaa xam sàmmkat bi la yaa xam nappkat bi la na nga xam ne booy xëy dangaa war a jiital ne ma ñëw liggéeyee li sëriñ Tuubaa ci ginnaaw ki mu la booleel nag kon loolu bu ñu ko defee rek li ñu bëgg danañ ko am te ñu bañ a jaxal si mbir yi moo di li war a jiitu na jiitu li ci war a topp na ci topp loolu suñ ko defee insha allah li ñu bëgg danañu ko am tey ak ëllëg jataay yàgg na di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla maynu nu am ci ndam yoo xam ne sëriñ tuuba dana ko yëg borom daaru mooti dana ko yëg te magal gi nga xam ne moom la dajee itam mu nekkoon bis bi nga xam ne moom la sëriñ tuuba daje ak borom ak borom daaru mooti bi mu jógee ci géej ak Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon ne nañ ko ciy def ndax mbégte mënu ko gën a rëy daje gi mu dajeeg moom it yàlla may nu mu nekk loo xam ne mandarga lay doon ci màggal gi yu wane ne Serigne Touba mi joxe woon digal dëkk bi am téeméeri at mooy ki nga xam ne itam moo dajeeg borom Daaru Muti ba mu jógee ci géej gi te dénkoon ko li nga xam ne moom la ko dénk ba muy dem ba tey nag. mu moom itam ñu koy fàttaliku ci nisfu Saxbaan ji muy barxalu yi fukki fan yi ak juróom war a nekk juróom-benneeli fan ci mois de juillet bi nga xam ne moom lañ jëm ñaan yàlla mu fekke leenu ko te ñaan yàlla li ko tàmbalee ci jotaayu tey bi képp ku fi jógee ku nekk di dellu fa nga jëm yàlla na nga tegu ci yoonu jàmm yàlla na nga dajeeg jàmm rek tuyaaba ji suñu boroom law ko sotti ko ci kaw mbooleem koo xam ne kii teewoon nga fi wala nga amoon yéeni teew bi xam naa buñ ko dee gàttal rek dañuy wax ne ngërëmul sëriñ Touba mbégteem sëriñ Touba nu am ko ci ginnaaw borom daar moo yal na ko yàlla sotti ci guddik tey gi ak mboolem fan yi ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bisimilaay tubaarkàlla sëñ xaadim eh, noo leen di sant bu baax a baax di leen gërëm itam di rafet rafetlu itam liggéey bi ni ngeen ko liggéeyee te dépp aw ci aw yoon waaye nag dama la waxoon bu njëkk rek mu moo moo ci nekk nee la woon kii ngeen di liggéeyal day lépp lu ngeen ci bëgg su àggee di ngeen am da ngeen ci gis loo xam ne ko wenn seen jot kon nag yéen itam bu yeboo seen mbir ak képp ku ci bokk ak képp koo xam ne bi la bu yeboo rek moom ci boppam it mu cant ndax ak payam gu leen di fay day kenn ku ne fa nga nekk dina agsi ci yow ba nga gisal ko sa ñu ngi leen di ñaanal nit bu baax a baax dëgg bu barkeel ñii dëgg ci rajo bi itam seen dëgg barkeel te ànd ak jàmm ànd ak xéewal te ñu bokk ko mboolem Sénégal gépp tabaarakallah sant